alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyaaka na'budu wa iyaaka nastain ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin allahuma salli ala sayidina muhammadin il fatihi lima ughliqa wal xaatimi lima sabaqa naasiril haqqi bil haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة السيقي وهدر لنا بهذا المقدر والتعطي فيه بنصرة تهت لنا بسر ربي احسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sant yàlla bu baax ci question bi nga xam ne moom nga laaj mi loo xam ne actualité la àddina bi fii ñu tollu tey Euh, yàlla mi nga xam ne moo ko bind moom yàlla ci boppam dañ koo bëgg xañ àddinaam moomale ko koo xam ne dañ koo dàq ci àddinaam bëgg a jël ki moom xañ ko jox ko ki nga xam ne dañ koo xañ mm-hmm. nga gis seytaane mi nga xam ne yàlla daf koo bind ni ma moomee man yàlla Mm. noonu la moomee seytaane noonu la moomee keneen moom moom lépp lépp lépp lépp lu mu bind yàlla moo ko moom mu xool ci biir lim moom moom yàlla mm-hmm. ni yow nii nga xam ne man maa la moom yow seytaane yow dàq la yow sama reconnaissance ci yow dañ na dañ na dàq naa la bokkatoo ci dara ci man dootuma nangooti sa dara dootuma jël sa dara lépp lu ma am dootoo ci jot yow pare nga ci te kooku mooy maye de yàlla laa yor yàlla mooy maye yàlla mooy xañe yàlla mooy dundal yàlla mooy rey yàlla mooy ki nga xam ne moo am kattan yàlla mooy ki nga xam ne mooy nekk éternel mooy ki sax yàlla mooy ki nga xam ne mooy ki am quwa mooy ki am kàttan yàlla moomu moo wax ne moom moo dàq saytaane moo ko rejeté moo ko sànni saytaan saytaane il n'est rien rien et plus rien du dara du dara du tus say man maa ko wax man Cheikh Omar Diop man maa wax ne seytaane du tus ndax yàlla kum na doo tus doo tus dama bëgg jullit ni ak nit ñi xam ñàkk solog saytaane ak ñàkk darajaay saytaane ak doyee dig saytaane loolu nit ñi eewoo guñ ci loolu nag fataxul bu ñuy egg la maqaama bu ñuy éeg la man dem naa ba xam ne yàlla éegale na ma ci xam maqaama xam ne saytaane du dara ma bëgg ci ee sama mbokk jullit ñi ee ci sama mbokk nit ñi ñiy ragal saytaane xam ne waruñu ragal saytaane yàlla la ñu war a ragal ñiy moytu seytaane war nañu moytu seytaane yàlla lañu war a moytu ñi nga xam ne dañuy tiit ci seytaane waruñ koo tiit yàlla lañu war a tiit ndax yàlla moo am kattan yàlla mooy ki valable yàlla mooy ki nga xam ne mooy reconnaître mooy kiy reconnaître reconnaître mbir yi yàlla mooy ki nga xam ne ku mu may nga am ku mu ñàkk ku mu xañ nga ñàkk kooku loolu lay war a ragal mais ki nga xam ne dañ ko rejeté ko bëggatuñu ko amatul reconnaissance waaye kooku nu ñu koy tóoraalee nu koy ragale imagine toi ma jox la exemple rek sa kër nga nekk fi nekk say doom nekk sa njaboot nekk ak say nga am kenn koo xam ne amul fu jëm boo ko génnee sa kër amul fenn fu jëm soo ko génnee si kër rek ma torox na léegi nga génnee ko kër gi ne ko yow reconnaître ma la sama kër sama ko ci yow sa fini pour de bon amul fi mbokk étranger la amul këyit amul dara amul tus ñëw na sa kër yaa ko fat ci biir kër gi du génn du dem fenn amul fenn fu muy échappé yow nga xëy xëy rek sànni ko ci mbedd mi ne ko bëggatuma laa gis waaw kooku waa kër gi war nañoo toog di am benn xalaat ci moom nañ ko fàtte nañ ko fàtte nañ ko sànni fële buñ amee te sa relation dénk ko yàlla gis nga maa ngi leen di xamal benn affaire lépp lu ab jullit dénk yàlla seytaane du ko laal loolu da nga ma bëgg ngeen yeewu ci damaa bëgg ngeen yeewu ci ngeen jébbal yàlla seen bopp képp ku jébbal yàlla sa bopp seytaane mucc nga ci seytaane képp koo xam ne jël nga sa mbir jox ko yàlla mucc nga ci seytaane moo xam njabar la moo xam xërëm la moo xam fétiche la moo xam liggéey la moo xam wirde la moo xam lu mu mënti dox mucc nga ca li man Cheikh Omar Diop maa ko wax seytaane du tus kuy ragal na nga ragal yàlla kuy yaakaar yaakaaral yàlla kuy jébbalu jébbalul yàlla waaye toog fi naan dafa bari doole néewal nga doole yàlla ci sa bopp yàlla yàlla moom yàlla moom néew doole waaye yow seytaane doole ci sa bopp néewal yàlla doole ci sa bopp te yàlla nag ku doylu la soo néewalee sa doole ci boppam rek moom mu seetaan la rek ki nga may doole mu seetaan la ak moom kooku amul doole de kon seytaane heure boo ko ragalee rek jox nga ko doole heure boo ragalee seytaane mais nga seytaane doole heure boo ja bàyyee nga boo amee sa mbir bu ci bàyyi xel seytaane bàyyi ci xel yàlla rek bés boo ci bàyyee seytaane mooy invité nga seytaane si sa mbir moomu yaa ko ci dugal de moom dugg ci woon ndax amul accès ci dara lu dul loo ko dugal du ci dugg amul benn accès ci tus man maa leen ko wax seytaane amul pouvoir amul dara seytaane du tus seytaane amul benn doole amul dara parce ci alxuraan boo demee yàlla lu mu wax seytaane daf koo méngale ak jigéen te jigéen la jox fa bër ne inna kaydakunna azimun pexem jigéen lu màgg pex pexem jigéen lu màgg la te yàlla xam nga lu lum la dafa màgg màgg na loolu dafa màgg foo ko natt ci màgg yàlla lu mu wax ci seytaane inna kayda seytaane kaana da'ifan pexem seytaane lu doyee di la lu doyee de xam nga lu doyee di mooy loo xam ne foo ko natt ci ak doyee di weesu na ko. surtout fa yàlla. surtout fa yàlla yàlla lu mu ne amul solo sans amul rien rien rien rien ci solo. rien yàlla lu mu ne lu màgg la loola lu màgga màgga màgga màgg la soo demee ci bàyyi ba mu lay wax ne la yàlla nee na tudd tuddu gu bëri mu ne bu la yàlla joxoon junniy gémmiñ junniy làmmiñ junniy at nga tudd yàlla junniy yoon par bés du tax nga tudd yàlla tudd gu bëri ndax yàlla lu bëri ci yàlla sëñ bi loolu seytaane laa bëgg nit ñi xam ne seytaane du dara soo amee sa ak mbokk óolu ko ñàkk kóolute ci moom mooy dugal nga seytaane sa diggante yaa moom yaa ko dugal moom dugg ci woon yow yaa impliqué seytaane moom yow yaa may seytaane doole ci sa bopp yow yaa dem ba nga xam ne lu jóg nga ne seytaane la yàlla ci ci sa mbir lu yëngatu nga ne non seytaane la nañ ko def attention seytaane dafa bëri doole seytaane amul doole yaa ko may doole yow yaa gëm ne seytaane am na doole mu am doole mais seytaane amul benn doole amul benn pexe seytaane du dara seytaane ku ñu reconnaître la ku ñu dàqal la ku ñu rëbb la ku ñu sànni la ku kenn yàlla mi nga xam ne moo am baax yàlla mi nga xam ne moo existé yàlla mi nga xam mooy dëgg moo rëdd seytaane seytaane du tus gëm leen loolu ci seen bopp yi ngeen gëm ne seytaane du dara kon daal saafante leen bëggante leen wóolante leen na ñëpp am confiance sa morom ku nekk amal confiance sa morom soo amee confiance ci sa morom jamais au plus grand jamais nga am déception ci confiance boobu parce que boo ci amee déception sax parce que confiance bu à moitié la woon nga impliqué seytaane ci biir impliqué yàlla ci biir yàlla day roccee koo cee dafa seytaane foo jaar la nga doon ragal da ko gis ci moom lii man maa leen ko wax ñii sëy nañ am confiance ñii sëyal xarit yi nañ am confiance ci seen ay xarit ngeen ignoré seytaane bu leen ko sóor lekk naan leen tëddi leen nelaw leen happy leen happy xam nga happy happy leen <laughs> parce que yàlla mooy suñu borom lépp lu ñu may na nañ ko def nañ ko def librement te nañ war a seytaane fële du tus kuñ dàq la seytaane kuñ rëbb la seytaane fuñ ko fekk dañ ko war a xas dañ ko war a ŋàññi parce que yàlla suñu borom daf ko ni yàlla suñu borom daf ko dàq yàlla suñu borom daf ko rejeté ba pare rejeté nag képp ko ànd ak moom kon ñun les nous les musulmans dañoo wóor a ignorer seytaane à million pour cent buñ ko may ah. benn existence nii suñu pensée nii suñu activité nii si suñu ay relation bu ñu may seytaane dara zéro voté zéro avec seytaane da ngay xool ki gendarme bi ki police di wër ci dëkk bi nu muy doyee dee ci làqatu ak waxuma la ak yàlla rëbb waxuma la ak yàlla rëbb kenn ku nekk ci quartier bi rek def benn tooxi doona rek ba police di ko wër xoolal fa muy daw làqu. doye di fu doye di fu ne bu ñu yëgee ne police koy wër mbedd mu police jaar du fa jaar yow yàlla di bu nit yàlla di bu benn jaamam yow nga jël jàmm jox ko important eh, au lieu nga ragal yàlla mi koy rëbb nga dem ragal nga dem ragal ko moom jàmm parce que xamoo ku yàlla seytaane du dara maa ko wax man Cheikh Oumar Diop moo tax il faut ngeen nekk un des croyants il faut être des croyants loolu maa leen koy laajee biir di ko fàttali suñu mbokk jullit ñi di wax ne seytaane. bu benn sëriñ ragal saytaane bu benn julit ragal saytaane bu benn commerçant ragal saytaane ragal leen yàlla ragal leen yàlla te wóoluwante óolu leen yàlla gëm leen yàlla lii mooy dëgg seytaane du dara dara dara dara ku doyee di la seytaane du tus waaw kon daal pouvoir seytaane ñun ñoo ko jox seytaane amul pouvoir seytaane na plus ne représente rien. ndax ku yàlla rëbb la ku yàlla ku yàlla doy la il ne représente rien. kon daal lépp lu mu am ndekk si ñun la tukkee ko. kese seytaane du tus nii bu nit nii bu jinne du dara lii man maa leen ko wax essayez vous croyez la bon Dieu nga xool essayez gëm leen yàlla rek ngeen xool rek ngeen xool seytaane du dara. kon daal léegi doole ji ñu jox seytaane léegi. ñun ñoo ko ko may ñun ñoo ko may. ñun ñoo ko may suñu bopp de. mais yàlla maye ko ko de. ñun ñuy tiit ñun ñuy tiit. ñun ñuy ragal ñun ñuy ragal. moo tax Seydina Omar waxoon ne yàlla yàlla xalaat ko ragal parce que moom demoon na ba xam ne bu seytaane jub bu aw mbedd mu aw seytaane wàññeeku yàlla yàlla xalaat ko ragal bés mu ne bés boo xam ne dinaa dee lu may ragal bés boo xam ne du ma dee lu may ragal yàlla yàlla xalaat ko ragal parce que boo demee ba am fatxu ci loolu da ngay xam ne seytaane du tus seytaane du dara dara dara lii partagé leen ko ngeen dimbali seen mbokku jullit yi ku nekk na def participation partagé ko mooy seytaane voté nous votons que seytaane il ne représente rien devant nous nous nu nous sommes des des jë ñu yàlla lañ gëm gëmuñu seytaane. xalifa ah. yàlla yàlla mu ne maa maa def doomu aadama. yàlla ma yàlla ma jël doomu aadama fale ko ne ko yow yow yow yow doomu aadama yaay sama xalifa ci kaw seytaane dàq naa ko. yow ñu jox la doole kee ñu néewal ko doole yow nga wëlbatiku dem ba feebal ci kanam ki ñu néewal sa veut dire que parce que pas compris ce que on t'a donné li ñu la jox nga xamul mais bu ñu la jox boo demee ba reconnaître li ñu la jox puissance bi la yàlla may mhm. pouvoir bi la yàlla may mhm. fal gi la yàlla fal et puis yàllaa ngi ànd a yow woowu maa ko ay na maa kuntum bu ngeen nekk maa ngi ànd a yéen mais nan ñun lan lañ dese lan la ñuy ragal quest lan la ñuy peur pourquoi peur lan la ñuy ragal lan lan nañ ragal yàlla nañ ragal yàlla suñ borom nañ jël yàlla suñ borom jox ko suñ lépp ñu xool ba xam ndax seytaane da am accès suñ lépp benn accès du ko am fan yëpp lii laa doon liggéenti di ko ñaan yàlla di ñaan yàlla mu génnee seytaane ci suñ mbir seytaane na génn ci suñu ay mbir ñun allié wuñ ak moom sequñoo moom dara te suñ koo boole ci suñ tus ñun yàlla lañ implanté suñ bopp yàlla lañ dénk suñ bopp yàlla lañ wax jox suñ bopp yàlla lañu gëm ak ay dogalam ak ay mbiram ci suñ kaw gërëm nañ lépp lu mu def avant mu koy def ak bu mu ko defee ba pare. ala kulli haal. maanaam alhamdulilah ala kulli haal maqaama bu ñuy yéeg la. Mhm. donc alhamdulilah ala bépp ma dogal bu yàlla dogal suñ kaw gërëm nañ ko lu jiitu mu koy dogal ak bu mu ko dogalee ba pare. kon seytaane du dara nañ ignorer seytaane nañ am confiance ci suñu bopp ak ci suñ ay mbokk julit yi rafet njortu ci suñ ay mbokk julit ñu dàq seytaane fële. seytaane du dara bu ne bu ko kenn ragal man maa leen ko wax man am xam naa lu tax ma wax ko xam naa leen seytaane du tus man maa ko wax man Cheikh Omar Diop seytaane amul doole seytaane du dara mu ngi mel ni étranger bu ñëw Sénégal amul këyit ñëwul par la voie normale dafa dëgg dugg ci dëkk bi amul voie normale bi yàq rek nag kum mu jam la paaka kum romb kii kooku kooku kooku am na légalité ci réew mi mm-hmm. bu ñuy jaay duñ ko jaay bu ñuy jënd bu bëgg a jënd du am lu mu am këyit légalul seet seytaane la lay représenté suñ biir il n'est rien légalul suñ biir légalul yàlla daf ko rejeté il n'est rien avec ses compagnons du tous mook ñim àndal présenté wu gis nga un million de seytaane benn nit bu gën yàllaa ko un million de zéro boo ko tegee nga def benn un moo ëpp njëriñ un million de zéro kenn mënu koo liir un million de zéro kenn mënu koo liir benn un un rek boo ko tegee mën nga koo liir benn boo ko tegee ci kanam mën boo ko tegee mën nga koo lire donc c'est le le satanisme la saytaane saytaane ci boppam c'est un million de zéro amul amul benn sens il faut nga teg un bi ci kanam pour mën pour pour moom njëriñ un mooy ki ki koy amal ki koy reconnaître moom mooy moom moo koy may puissance moo koy tax a am mais ci fekkee ne si si c'est il n'est rien saytaane du tous man naa ko wax man ceexuma boo bindee un million dindil zéro bi ba xam ndax da nga mën a lire zéro yi ak li zéro yi bëri yëpp. li dindil un bi soo defee un million nga bind ko nga nga nga xool les zéro du ñu tus yow mi toog naan sa seytaan dafa am doole yow yaay un bi yaa leen may pouvoir suñ bu buñ la gisee gis na yow million nga fekk daw dara kenn nga rek duñ tas duñ dara seytaane du dara lii mën naa ko wax man Cheikh Oumar Diop bu kenn gëm seytaane nañ baalante nañ jéggalante nañ bëggante nañ muñlante nañ jàppante nañ óoluwante nañ soppante ah ku amul ku juum ñu corriger ko ñu wax ko dëgg lii la yàlla bëgg lu mu métti métti wax ko dëgg lu mu la jege-jege wax ko dëgg lu mu la sori sori wax ko dëgg bu ragal dara personne kenn mënu ci kenn tus la hawla wala quwwata illa billah ila waxul illa bi seytaane illaa bi illaa billah la laa hawla wala quwwata illaa billah mun kenn amul kattan ku dut kenn amul pexe ku dut yàlla donc yaa ngi yàlla supprimer seytaane sur tous les côtés sur les plans yàlla moo wax ne afata afala tadabbarul qur'an am ala qulubihim aqfaluha yàlla mu ne xanaa yéen du ngeen settantal maanaam alxuraan yi wala dañoo tëj seen xol yi loolu dañ ko war a bàyyi xel alxuraan jàngal nañu ba tey que ne yéen yéen lañu reconnaître yéen yéen a am puissance yéen yéen ay les hommes de Dieu nit yàlla bu koy wax mooy ki nga xam ne dafa ignoré seytaane c'est lui qui est nit Dieu qui est nit yàlla un vrai de Dieu suñ koy wax mooy ki nga xam ne dafa ignoré seytaane jébbalul yàlla topp yàlla gëm yàlla kooku mooy homme de Dieu donc même si tu n'as pas pratiqué ah cent pour cent euh, euh, l'islam comme maîtriser wu la ko il suffit que yow nga ignorer seytaane rek ba téye sa lëm da jël yéeg nga ci maqaama yéeg nit nekk nit yàlla parce que ignorer nga seytaane léegi jox jox nga yàlla sa bopp jébbalul nga yàlla gëm nga yàlla doyoo nga yàlla su yàlla jox nga ko lépp li nga moom kon il faut donner le il faut donner César ce qui appartient à César nous on a appartient de Dieu <laughs> yàlla moo ñu moom. nañ jox yàlla suñu bopp lii man maa leen ko wax seytaane du dara macha allah <laughs> baax na jërëjëf déedéet damaa bëgg nit ñi gi eew ci loolu eh? bu kenn ragal bu kenn ragal ragal seytaane moom la bëgg seytaane dafa bëgg ragal ragal pour yàlla mu pour seytaane non parce que du dara il n'est rien <laughs> su ma ko waxee nag dimension dimension bu kawe la dama bëgg ñu comprendre li may wax dimension la boo xam ne c'est pas c'est pas à non seulement c'est pas facile à reconnaître mais pas wax ma sax di ko wax mais di ko xalaat sax dafa yen dafa dafa yombul mais ku am xel tey seetantal di nga xam ne lii kii wax dëgg la il est temps que ñu récupérer suñu bopp moom kenn moomuñu ko dut yàlla yàlla mooy suñu borom ñun ay jaamu yàlla lañ bu ñu nangu kenn di ñu moom ku dut yàlla bu ñu jaamu kenn ku yàlla yàlla mooy suñu borom moo ñu moom on est pour Dieu Dieu est là pour nous mais nous ne sommes pas pour le satanisme nous nu sommes pas pour le seytaan nañu gëm yàlla tey julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jàng alquran di tudd suñu borom mooy yàlla nañ koy tudd yàlla mooy dëgg yàlla mooy dëgg seytaane du dara man maa leen ko wax ignoré la foo la foo la ñu ignoré bi nga puissance bi gën a am doole mooy ignoré seytaane te loolu moo koy daanit moo koy rey c'est-à-dire ignorance moo koy rey con considération moo koy may pouvoir looy def di ko sóor sànni ko fële booy jëf jëfalal yàlla looy commencé nga wax a'uuzu billahi mina seytaani rajim boo ko waxee yàlla dana la protéger nga wax bismillahi rahmaani rahim looy def rek nga wax bismillahi rahmaani rahim du la jege fenn bu bëggee def day arrière du laal xoolal li lay wan ne amul doole bismillahi rahmaani rahim boo ko waxee ci looy def wala bismillah looy def nga wax ko su la naroon attaque day arrière parce que du laal alalu yàlla parce que il a peur mooy ragal soo ko ragalee xoolal corona bi nit ñi def tiital ñu tiital ñu jullit ñu tiital ñu parce que tiital tiital boo xam ne teguwut ci dara ñun ñun jullit li ñu amoon mooy bu musiba amee ñu def dem ñaan dem ñaan pour yàlla tegg musiba bi ak musiba bu mënti doon ñaan ne mën na ko teggi mais dañoo dem ba seytaane laxasu ci yëf yi ragal loolu ñu bañ fàtte foog na sax ñaan mënu ci ñaan amu ci solution te ñaan ñaan moo ko dindi ñaan moo ko wàññi kon bu leen ragal dara hmm. dem leen màggal ak jàmm ñib si ak jàmm bu leen ragal dara set leen lislaam moo ko digle wattandiku leen lislaam moo ko santaane pas ngeen def ko pour ragal dara def leen ko parce que bu êtes vous devez le faire waaw ngeen ngeen set parce que da ngeen a war a set. ci imaan la bokk. ci imaan la bokk ngeen ngeen lekk ba suur naan ba màndi et puis jël yàlla jox ko suñu bopp gëm ko óolu ko dëggu ci seytaane ñu ignoré ko. dem seeti sa xarit mu tegal la añ sax yaa ngi hésité nga lekk ba suur am am na lu mu ci def. te voilà loolu may dugal nga ca poison yaa ko ci dugal de boo essayé lekk ko foo jaar gis ca lañ ci def parce que seytaane mooy ñëw remplacer la def fa toog parce que yaa impliqué seytaane ci lekk bi. wóoluwoo kenn amuloo confiance ci sa xarit mu jox la nga lekk. amuloo confiance ci sa jabar mu jox la nga lekk. amuloo confiance ci sa sœur jox mu jox lekk. parce que dem nga ba impliqué sa xel mi ne léegi lu ñu lekk lu ñu la jox rek am na lu ca nekk. ignoré ça ngeen seytaane ngeen dàq ko fële. seytaane du dara maa leen ko wax seytaane koy jox ko sax bala nga ko jox loxo yaa yaa ngi liimu hésité voilà di liimu voilà seytaane moo mooy def loolu a saafoon teg sa mbokk jullit yaa jëmbat seytaane sa xel yaa jëmbat seytaane si sa mbir mhm. ba lépp looy def mu am ci wàll di wax mhm. sama wàll ci yëf yi nu lan laa lan mooy sama wàll ci mbir yi lan laa ci am lan laa ci am nga ne ko yow mooy ragal mbir mi ñàkk confiance mooy mbiram nga séddu ko ci nga séddu ko ci wàll léegi doo am lu loolu dugg mu am ci wàll. léegi la mu jël yow yaa ko jox. yaa ko jox yow yaa ko permettre quoi yow yaa ko permettre loolu. en ubbil buntu mu dugg si sa kër. mu dugg ci sa mbir. tey sa kër gi sa gardien bi ci biti ko mu ubbil du dugg. du dugg parce que man maa ko man maa ko fa taaj. léegi nag su ko defee nag kooku koy ñëw du duggee ci kër gi parce que lañ ko ubbil mais kër gu tëj yàlla tëj sa kër. Hmm. jox la pouvoir. Hmm. bu seytaane mu ñàkk solo mu doyee di moomu hmm. mu ñàkk daraja moomu nga xam ne dañ koo reconnaître wul hmm. dañ koo rejeté seytaane moomu laa wax mi nga xam ne dañ koo rejeté hmm. rejeté képp ko ànd ak moom mu doyee di moomu bu demee ba am doole ci sa yow parce que yaa ko ko may damay wax ne bukki bi yoree bu daf koy wax seytaane du dara gëm leen yàlla gëm leen nañ bokk ñu ñëpp ñu gëm yàlla te xam ne suñ njort rek la ñu yàlla di fekk si. yaa waaw yàlla yàlla moo ko wax. an naa an naa maa ngi ma ma ah? maa ngi fekk si jàmbi ci ci. maa ngi sama njortal jàmbi. maa ngi sama njortal jàmbi waaw. an naa an naa abdi bii. voilà voilà yaakaar naa loolu xadis la. loolu xadis ko yaa ngi dégg. Mm-hmm. maa ngi ci sama njortal jàmbi. Mm-hmm. voilà an naa xam ne zane na xam ne maa ngi ci sama njortal jàmm. kon daal xadis la ma ko kon daal lépp loo xam ne seytaane am na si ñun suñ njort la ko amee. suñ njort la ko amee suñ ragal ñoo ko boolee ñoo ko si dugal. suñ karkar suñ tëb. lépp lépp loo xam ne seytaane mu ngi ci suñ biir ñoo ko si amee looy laaj ci wàllu seytaane nga laaj ko sinon ñu tëj. adi ah, lii kay leeral nañ. waaw <laughs> lii kay leeral nañ masala lan tëj. dañoo bokk dañoo wax sax ñun ñëpp ñu bokk ñu sant yàlla. alhamdulilah ñooy wax ne ay nañu wax alhamdulilah yàlla wanee ne hmm. mooy dëgg alhamdulilah waaw dañ sant yàlla ñu wax alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne yàlla ci boppam moom baax moomu moom wan nañu ne moom moo moom moo am mm-hmm. moom moo existé mm-hmm. moom moo am kattan moom moo am pexe mm-hmm. moom mooy xañe mooy maye seytaane daf koo dàq dootu ko rokk na bi illaa yow ma jëppension na doot c'est fini du ko mës a baal te fini kon loolu war nañ ci tëdd ñu nelaw ci ñoo xam ne seytaane du dara il n'est rien salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu